أكدام السلام ربي وتوبا ليكن ربي فيما سعدوني والتفت لي يا ربي برا وبعرا ماكسا في ملاكي سعدوني ولتدم لي قناعة بك ربي راسدا مرشدا بشر مذوني ولتسق لي مراغبي دون كد عابدا خادما بأفضل ديني وبي أنفع الدنيا وأخرى qizan kul alhamdulilah a seytaane rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi nga xam ne yéen a baaxu di bàyyi seen su information bi di assalaam point net ginnaaw bi ñu ñaanalee xalifa général sëriñ Mountakha Bassirou du ñaan suñu borom yàggal ko fi ni ñuy ñaanalee suñu xalifa général noonu la ñuy ñaanalee xalifa Daaru Salaam du ñaan suñu borom yàggal ko fi noonu lañ koy ñaanalee nag njabootu Daaru Salaam gépp bis bi mooy bis bi nga xamante ni nii Serigne Touba jugee woon si géej gi ñëw fii Daaru Salaam suñu Cheikh Anta dalal ko ci dëkkam bu sell bi noonu la ñuy doxee daal di dugg si biir fas yéene ne wan yenn interview yi nga xamante ni fas yéene ne fay jàll ci seen site information bi assalaam point net. منغزا كل سائل ومديني ولنبازز بالعلوم بعلمي وزوي الجعل والجول يعيني ولنبازز بتعلم تغنى وبيعصم جميعا من لعوني ولنبازز اليتامى دواما أنزم بآباهم كل عين رب زدني علما وزدني سعيا يا كريما إلي دعبا عنيني عبلي الكسب مستقيما منيبا في الكتاب kenn ku ne xam na ne moom borom bis bi moom daanaka liggéeyal na sëñ bi ci maam Cheikh mi nga xam nii moo waral borom dërëm ak gërëm yàlla defal na ko ay taw tawfeex yoo xam ni bis bi lu ci waaye sàkku rek yàlla suñu borom mën la ko defal ah wax yàlla de yëf moom. rafet na lool parce que nii ñu ko gisee ni la daan demee chaque année ñoo ngi ñaan yàlla ci kàttanu Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak Gaawaan yàlla defal ay xéewlu yu awante ak taw feex saarem baati ñoo ngi sant yàlla bu baax julli ci yoon bi sant Serigne Touba bés bi nag di bési cant man Serigne Fallilou Mbaye laa tudd dëkk Mbacke Bawol ñoo ngi sant bu baax di ñaan ci yàlla yoon bi Serigne Touba mbas mi yàlla na ko fi yàlla jëlee sonn nañu sonal nañu yàlla nañ ko yàlla jële jële ko ci àddina sépp rawatina fii nag rawat euh, Sénégal rawatina Touba Mbacké yàlla na ko yàlla jële jële waa Salam FM jërë ngeen jëf ca kaw ca kanam bis bii nag fàttali ko la ndax xaadimu rasul bis ni ki tey la ñëwoon fii maam Cheikh Anta Gan woon kanam gu rëy googee murit yëpp daje fi lépp luy teraanga mu def ko ba àgg ci tër nit sëriñ bi soog a yónnee ne bàyyi leen ko kon bu dikkee ñëpp war nañoo fàttalikuwaat ne woote wuñ ko sax ne buñ ko woote woon mu gën a rëy lii waaye mbas mi moo taxoon mbas mi nag ñu ñaan ci mi sëñ Tuubaa yàlla ko jëlee ci bis bii ci barke maam Seex Anta moom moo waral moo fi indi mbooloo rek lañ topp waaye buñ doon toon ndigal tey du ngeen mën a xaj fii ndigal sëñ Muntaxa nag moo tax ñu defe ko ni ñuy ñaan yàlla fekke ak ko ay déwén déwén te tal ko rek te mbas mi suñ borom jële ko fi jàmm ak salaam wa salaam wastajib daawati wa biltu wa zuxli fawqa ma dumtu bistikan wa anini waltazur minka bi xayra salaatin bi salaamin ila sabiil amini والدعى لي سعادة والتواسعا واكتبني بي من علي الأمين والتعذي من الأذى والبلايا والتيول للعدا وغل المعوني وابني جملة العدا ولتحسني بك من إبليس وجيم العين ولتنور قلبي بفات والإذاء أبي سنة Euh, euh, waaye sëñ tuubaa moom kenn mënu koo tëye ci dara noo ngi ñaan ci baaxug yàlla ga ak màggug yonente ba mbas mi ci réew mi yàlla na ko fi suñ borom jëlee ci jàmm ak salaam ñëpp ànd ak jàmm ci barke sañ Touba Mbacke barke maam Seex Gaawaan ñoo ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax tuubaa moom ko fi nekk jërul ngay jàq jërul ngay tiit lépp sëñ Touba lépp ay baax nu ni murit lañu rek te da ay taalube lañu ay murit lanu te lu baax rek la ñëpp bëgg moo leen fi indi yàlla nan suñu borom yàlla jàppale nun mboolem jullit barke Simaan Seex Gaawaan barke Seexul Xaddim alhamdulilah rabbil alamin kontaan rek ci màggal gi te xam ne li mun la ñàkk ndax mbégtem Sëriñ Tuuba ëpp naa sàggane wala di xaar naan feebar wala dara il faut ñu ñëw ñaan si fi bu ko defee yàlla defal ñu sutura ñaan feebar bi yàlla saafara ko ci barke borom bés bi ci barke Sëñ Tuuba man nag damay jëwri ni soxna moom yi moom mu mu sëñ am di maay jëwriñ ji moo tax tey ji ma ñëwoon ñu doxee ndigal li rek man ak sama mag bi ñoo ànd pour ñu ñëw joxe rek suñu ah, suñu addiya ziyaare waale ñaanal suñu waa daayira waaw ñu sant yàlla baax baax a baax di ñaan sëñ mu Mbacké yéen a saa borom yàggal dina ko wér ak Mamour Fatou Mbacké ak njabootam gépp ak sëriñ sëriñ Xadibou Fall ak saa borom yàggal dina ko wér di waa Touba Refane gépp di ñëpp euh, feebar moom daanaka xaw na cee wàññi dara ndax fi ne mbooloom nan bëree bëree tut nii waaye nag sant yàlla baax a baax a baax waaye nag fii ne ku fi ñëw ànd feebar bu sooba la di nga wer waaw ku ñëw ci mosoo feebar di nga wer fi mu daal sala fii mooy eh, taraama tara yaa salaamu daar salaam ku fi ñëw andi waa andi waal nga wer fii mooy salaam heureusement nag boo kenn du fi tawat bu soobee la feebar moom fii kenn du ko fi jëlee ci ku ñëw feebar fi boo dikkee fii boo demee doo koy baale ñoo ngi ci barke maam Chante Mbacke barke maam Mor Fatim Mbacke ak sama sëriñ si amoon tamit saa defal jàmm bu baax a baax ak mboolum julit yéen leen defal jàmm ku fa andiwal feebar bi doo koy baale te feebar du fi jógee waaw jàmm du ko fi am ci barke maam Chante Mbacke. di sant yàlla ak yonent bi di sant sëñ Bamba di sant sëriñ Touba Mbacke mi nga xam ne moom moom bis bi ndax lépp sëñ Bamba jàmm ju am defal na jàmm def ko ci réew mi ci barke sëñ Bamba. yaakaaruma lu dul Daaru Salaam lu dul Daaru Salaam bëgguma lu dul Daaru Salaam Daaru Salaam di sama buntu ci Serigne Touba di sama buntu ci yoonu Mouride tey bis bu mel nii bu amee mu fekk ma ci réew mi man mu fekk ma Daaru Salaam yëg euh, maanaam kaw damay am lu kawe sama njort maanaam mbégte mënut a weesu loolu mbégte man ci man mooy màggalu Daaru Salaam jot mu fekk ma Daaru Salaam loolu dara gënu koo kawe ci man. tey itam bis bi maanaam saa bu jotee ma fekke ko maanaam buy ñëwaat dama ci yokk boo xam ne yëg yëg ne yokk naa maa ngi leen di ñaanal yéen ñii nga xam ne yéenay waa seen salam point net bi euh, maam Cheikh Anta yokku leen ngeen am lu kawe seen jot maam Cheikh moom nga xam ne mooy borom Daaru Salaam a gaawaan nga xam ne moo di rakki Serigne Touba nga xam ne moo di doomi soxna Aysatu mbake ñu naan ko ay soxna Anta Ndiaye di waajuru sëñ Modou Mamoun ci barke sëñ Modou Mamoun moom nga xam ne moo jur sëñ Amidun sama turandoo maa ngi leen di ñaanal ngeen am lu kawe seen jot incha allah ci kaw ca kanam ci lu baax kontaan naa ci yéen bëgg naa ci yéen mbooti daaru salaam yi ak xéwalu daaru salaam yi yàlla tabbi si seen